waaye président moom ci boppam na fexe mu dimbale réewam ndax alxuraan euh, yun ci wax nañu ne irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama ñi ngeen féetee kaw yërëm leen ndax ki leen féetee kaw muy yàlla yërëm leen ndax mun leen a dimbale kon nan dawal yërmande ci réew mi na xam ne Sénégal gii nii bu mu fàttali ko faloon dafa am ñoo xam ne ñoo faloon président Macky Sall dafa am ñoo xam ne ñoo ko jàppaloon depuis 2008 bi mu génnee ci Ablaye Wade di ko jàppale ba yegg si fii ndax xam ne moom judduwul ci am-am Macky Sall na xam ne moom dafa juddu ci ñàkk dafa juddu ci lu métti dafa juddu ci loo xam ne dafa dafa ñëw fekk yaayam nekk di ñu ni ko si la muy waxee woon ne dafa doon jaay caaf papaam nekk gardien mu ñëw nekk yàlla def muy góor góorlu ba nekk président kon na fexe mu jàppale askan bi xam ne moom fi mu jógee dafa metti kon lii waru koo fàtte damay wax ne ñiy wax naan ne euh, su ma faloo dinaa def li nañ def nank parce nguur dafa am doole alal ak xaalis dafa am doole maanaam li da ngay wax naan su ma amee dinaa su da ngay wax sax nag yow mi amagul dara sax naan su ma amee 100000 de dina def nangam dina def nangam yàlla xam ne boo amee 100000 am na yeneen occupation wala am na yeneen himma yoo xam ne tey jii ñooy nekk sa bopp bi ba doo mën a am jot pour mën a jublu ci ay wàllu loolu nga doon wax sax wala nga koy nangam kon nañ bàyyi xel bu baax a baax ci ni ñuy campagne nañ bàyyi xel bu baax a baax ci li ñuy promesse askan bi nañ bàyyi xel ne. wax lu bë wax lu bëri jëf lu tuuti waaye jëf lu bëri rek wax lu tuuti mbir mi du wax ju bëri mbir mi du indi ay jafe-jafe mbir mi du leneen ak leneen. yaa ngi dégg di leen wax na ñoom ñëpp muy classe Ousmane Sonko muy classe euh, Macky sàll yaa ngi dégg muy classe ñoom euh, euh, Barthélemy Diaz ak ak ñoom seen ku ci nekk rek xamal ne réew mi ngay liggéeyal ku ci nekk rek xamal ne Sénégal moom la tax a jóg Sénégal boobu tax laa jóg nag na nga liggéeyal sa askan na nga tebul sa askan na nga jàppale sa askan. te bul nax sa askan parce que gars yi yàlla xam na ne ñoom lu ci ñu ci bëri seen wax rek lañ fi wax rek la ñu am waaye bés bu ñu toogee seen mbokk yi lañ fay nekkal seen dëkk lañ fay nekkal te Sénégal dafa nekk loo xam ne benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar dangay gis ne suñu mag ñu njëkk ña daan nañ demlante lante Serigne Touba daan na dem lante ak Seydi Hadji Malick Sy daan na dem lante ak euh, Bou Kounta Ndiassane Cheikh Ibrahima Niass daan dem lante yaa ngi dégg Serigne Fallou yaa ngi dégg Serigne Modou Moustapha daan na dem moom mu nekkoon xaritam lool yaa ngi dégg alaaji Abdoulaye Niass daan na dem naan teg Serigne Touba daan na yónnee ci Serigne yaa ngi dégg bi muy jugee phase jaar na Tiwaawoon yaa ngi dégg Seydi Hadji Malick Sy ndokkale ko jugee foofu noonu yaa ngi dégg ñëw Kaolack yaa ngi dégg kon lu rafet rek moo fi yàgg am yaa ngi dégg Baye Niass Baye Niass ci boppam daan na daan na daan na ñëw euh, fii nga xam ne mooy euh, euh, ëttu laayeen yaa ngi dégg ñu nekkoon ay xaritam lool yaa ngi dégg kon dafa am loo xam ne tey jii nii réew mi benn bopp la mag ñi ñaan nañ fi ba pare waaye ñaan googu noonu ñan ñoo ko mën a mottali muy politiciens yi nga xam ne ay doomi Sénégal lañ yaa ngi dégg politiciens yi nga xam ne ay ñoom Sénégal la leen tax a jóg yaa ngi dégg fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee fii lañ nàmpe daal nañ ko nañ ko rafetal nañ ko rafetal kon dara jaru fee ñaawal léegi ci ci ci élection yi ñu nekk nii nii nee nañu dana tàngu loolu Euh, ci côté euh, lii nga xam moom mooy nguur maanaam parti bi fare ak Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoo féete ak Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen tey lan nga gis ci loolu est-ce que dina yomb ci euh, ñi ànd ak président wala boog dina yomb ci ñi ànd ak Ousmane Sonko dox ndaxte nee nañu sondage la pour présidentiel. damay wax benn affaire Ousmane Sonko pour dimbale ko rek ah. moom. Hmm. na moytu président Macky Sall. na ko moytu ci naka. na ko moytu ci côté wàllu mystique. Ah. na ko moytu bu baax a baax a baax du caaxaan. parce que euh, Macky Sall ñun duñ duñ jot a xam. billahi wal kitaab bi sëriñ bi li ma lay wax nii 2011 la 2010 jàpp 2011 sarax bi fal Macky sàll te ñu defee ko Kaolack billahi lazi la ilaha illa huwa ci ñun ñii la jógee. yéen a def sarax. billahi lazi la ilaha te sarax bi fii la ay ay nit ñu ay jóg ñu ay jegeñaale Macky Sall lool ci côté wàllu jabaram ñoo jóge fii nii ñëw ba Kaolack. ñëw def ci sarax boobu noonu delluwaat te sarax bi li ci gën a ndaw rek benn bu ci gën a ndaw rek li tolloon keroog ci béy kenn xamul nu mu toll Ousmane Sonko na am lu nekk ci politique ëllëgam. mais def nag parce que ñi ngi sekkal nekkuñ ay ñoo xam ay gens lañ maanaam gëmuñ sax yàlla ray la ci ndox mi defuñ ko mi dara maanaam faalewuñ sax lu ñu que nguur moo garaaw sëriñ bi parce que am na loo xam ne boo toogee ci donkaasi gi hmm. ci boppam doon nangoo wàcc waaye damay wax ne Macky Sall gaayam yi buñ liggéeyul li ñu war a liggéey duñ campagne du soxla sax ñoom ñuy campagne nan ñu ngi wër wala ñu ngi def nangam nangam. mais mais danga ne Ousmane Sonko na moytu Macky waaye Ousmane Sonko moom itamit bàyyiwul boppam de. Ousmane Sonko dëgg la bàyyiwul boppam benn yoon ndax ah. dañ ko préparé. Hmm. dëkkam fi mu dëkk di Casamance dañ ko préparé. Ah. waaye am na ñoo xam ne ñu ngi koy ñaanal yàlla ñoo xam ne man xam naa ñu ko bëgg. Hmm. topp ko di ko ñaanal yàlla. Hmm. yaa ngi dégg sànq mais na def nank li ñuy wax ni dañ ko xam lu leer nañ ñun sëñ bi. depuis 2008 ñu ngi liggéeyal Macky Sall yow mi ci boppam ci ñi def sarax boobu. ci wallaahi wa tallaahi depuis 2008 sarax bi kër gi ñu ko defee ak fi ñu ko defee yëpp mën naa la ko wax sama waajur bu jigéen ci boppam. Mhm. Mansour Faye bi ngay dégg. sama waajur bu jigéen da ko doon taxaw di ko doon wax ne ko Macky Sall dina jël réew mi gëmu ko woon. Cheikh Kanté boppam sama waajur bu jigéen da ko wax ne ko Macky Sall dina jël réew mi gëmu ko woon musuñ taxaw gëm loolu. Mhm. li ma lay wax nii c'était en deux 2009 2010 Macky Sall ñëwoon na ci kër goo xam ne. Mhm. soo maam fa la nekk. bu mu fa ñëwee ci boppam. bi bi ko sama di euh, ko bi ko bi soxna sot noonu di ko wax ne ko kii dafay jël réew mi xale bii nii nii nii nii nii sama doom ji heure boobu bu ñu la wane rek mun da nga jël réew mi pare pareel na xam li nga jël réew mi mag Sall mu ngi may dégg soxna mu ngi tudd Khoudia Faye na fàttale ko mu ngi koy wax na ko Macky Sall mun naa mun ne ko di nga gañe Sénégal waaye boo gañee Sénégal li la sëñ Baara waxoon rek na la askan bi kese ñor na askan bi rek ñor te tey yàlla def na mu jël réew mi te tey ñoom man li may dégg dafa daf neexuma sëriñ bi ci Mansour Faye ci ñoom euh, far Farba Ngom yaa ngi dégg waa xam nga Alioune Sall sax Alioune Sall mun naa xam comprendre ci benn côté Alioune Sall dafa yàgg a liggéey Alioune Sall lu ko nit mm-hmm. damay wax dëgg te yàlla tax Alioune Sall dafa yàgg a liggéeyal depuis Ablaye Wade ci Petrosen maanaam nekkul loo xam ne ci mag Sall la ko jëlee déedéet mm-hmm. xëy na dafay weex dung ndax magam moo nekk président mm-hmm. yaa ngi dégg yenn journaliste yi nga xam ne duñ dara taxaw di ko xas wala di ko nangam parce que man gëw ma koo xam ne ñaari face nga maanaam zul waj zul wajhayni ñaari kanam keroog ñooñu safara la yàlla di raxasee seen kanam yi hmm. loolu gëw ma loolu maanaam da ngay cuuc fii di copp fii nii booy wax na journaliste boo xam ne hmm. yow da di ñëw di xas diw yaa ngi dégg fekk ne yow boo demee yaa ngi dem ci suuf mu lay jox enquête sa xaalis lu bon a ngi noonu lu ñaaw nañ ko bàyyi hmm. nit ku nekk da nga sa ngor Mansour Faye li mu wax ci teer bi lu ma naqari la lu ma méttiwul la parce que moom moomul terre bi jënd ko nekkul moom ci xaalisam la génnee jënd ko donte ku yàgg a jàppale président Macky Sall la kon tey jii nii terre bii nii Sénégal am nii nañ xam ne si alalu sénégalais lañ génnee def def def ko ci ñoom. pour Sénégal ki nga pour Sénégal la parce que ki ñu jàpp ki ñu jàppoon nii xaw ma ndax bàyyi nañ ko wala bàyyuñ ko. Mm. Assane Faye bu fekkee bàyyuñ ko nañ ko bàyyi ndax deful dara loo xam ne lu ñaaw la wala lu bon la. Mm. parce bi yàlla waxee ci alxuraan wala xar karam naa bani aadama wa xamalnaahu fil barri wal baxri wa razaqnaahu min at-tayyibaati wa faddalnaahu ala kasirin mimmaa lañ war a xam ne lépp loo xam ne rek mu ngi fii ni ci ci àdduna bi rek pour doomu aadama la avion yi rafet avion yi baax yi pour mm. oto yi rafet yi mm. lépp loo xam ne rek kon terre bii nii pour pour pour pour pour doomu aadama yi la léegi ñu dellu siwaatee ci élection yi rek pour jeexal euh, épisode boobu noonu mm. fi mu nekk nii mën nga jàpp ne Ousmane Sonko mën na gagné waa APR ci euh, local yi nii wala waaw Ousmane Sonko mën na gagné mm-hmm. ci lan ci zone am ci zone am ci zone am Dakar mën na euh, Barthélemy mën na gañe ci zone am waaye dakaar dafa am lu koy gañe te billahi lazi képp ku ñëw ci sëñ Sidi Mohamed borom alquran mu wax la lii gañe dakaar parce que ñun ñun ñoo taxaw wax mag Sall ne ko dangay ngay gañe largement gañel ko Kaolack largement boobu kenn taxawul ñemewul wax Medina Baye maa fa njëkk taxaw wax ne Macky Sall dina jël réew mi kenn ñëwoo ko woon wax mus naa ci mus nañu ma ci xëpp ataaya bu tàng Medina Baye Niass maa fa njëkk taxaw li may wax ni am na ay seede loolu ci fan nga ko teg ci baatin. ñaan ci baatin bu leer naññee. fa ngeen ko sampoon ba tey ngeen ko fa lañ ko sampoon ba tey yaa ngi dégg. ci boppam Diouf Sarr bu bëggee jël mairie dakaar dafa am loo xam da koy def gis nga sëriñ bi. Hmm. dafa am benn rab boo xam daana ko tuddal tey. ndax hmm. wut sax ñu koy tudd. mais mu ñaan rabu ñaan sangomaar. sangomaar meen sangomaar men waxuma sangomaar théâtre de <laughs> déedéet. sangomaar bi ma lay wax nii moom la séeréer di wax a sangomaar booy njofa fatti ñaana naa bu ñu ñaanal diw comme ñu ñaanal layti. Hmm. dañu ñaan ko sangomaar booy njofa fatti ñaana naa layti léegi ak garanga déedéet sangamaar boobu noonu mu ngi mooy nekk rabu géeji île yi fa la pétrole bi euh, feeñ ci Sénégal mooy île du Saloum mooy rab bi gën a mag ci rabu géeji Sénégal yi boo jëlee ay ñoom maam njare Kumba Lambaay ak hmm. lëg daaw rek ñoom ñëpp sangamaay sangamaar mooy seen mooy mooy mooy mooy mooy seen jiit séeréer yi xam nañ ko baax a baax Macky Sall xam na ko bu baax a baax Yékini bi may dégg xam na ko bu baax a baax ndax bi ñu koy mujjee samp fa lañ ko mujjee samp ci sangamaar hmm. waaye sangamaar boobu noonu ma lay wax hmm. Diouf Sarr wala képp ku bëgg a jël réew meeru Dakar fii bu ñu tàllalee loxo ñu samp ko billaahi wal kitaabi parce que ñun suñu benn. waaye yow mairie Dakar ba ci Île du Sall loolu est-ce que c'est cohérent est-ce que li ngay wax. nii xam naa mën a ne bëgg a gagné Dakar Diouf Sarr war a gagné Dakar ah, mbokk say naa boobu dem ba Sangomar Île du Sall. sëriñ bi waaw Yékini. Hmm. fan la dëkk. Île du Sall. Île du Sall mu dëkk. waaw fan lañ ko sampee woon. foofu lañ ko sampee. ñëwul di lëmbee Dakar lëmbee Sénégal yëpp kenn ko woon daan. waaw loolu dëgg la ba nekk ko nekk roi des arènes 15 ans te kenn mënu koo daan. bi ko bi mu waxee waxam ji mu wax. ne mindeef li ma bëgg a def mindeef mënu cee taxaw. ci la nag am benn pa boo xam ne sama xarit la. Hmm. pa soose ba sama waay la parce que jëflante nañ man ak moom lu bari tey ba ñu dugal affaire yi ni fii. waaye non dugalu ma ko ci damay wax xam nga dama ci li nga wax laa lay ñëwal. <laughs> maanaam gis nga keroog bi nga xamee ne. Hmm. moom ci pa boobu euh, ci boppam wax na loolu mu ne hmm. ah kii warta wax lii. mu ne wax lii nee ma seet naa Yékini ci almu nujum ci xam-xamu biddéew ñun yàlla may nañu ko bu baax hmm. xool naa ko ci kaw asamaan si nekk fa ma xool yi ci ci jéeri ji nekk fa ma xool ko fu nekk gis ma ko ma xool ko ci géej gis ma ko bi ma demee ba sangamaar dama ko foofu fekk mu toog bu ndaw muy rocc yi gën di rocc dooleem am na loo xam ne sax bëgguñ ko di wax mais dañ koy wax pour lan dañ koy wax pour wan ne la ne lii fal nekkul ne da ngay ñekk Dakar rek mun a fal boo xoolee géej gi benn terrasse la hmm. océan Atlantique bi. benn trajet la. Hmm. yaa ngi dégg moo jaar Dakar moo jaar Mbour. moo jaar naga moo wër Sénégal hmm. moo wër Afrique. Hmm. yaa ngi dégg bu ci nekk nag foo dem rek yàlla am na rab bu mu fa teg boo xam ne moom fa la nekk rab boobu noonu moo tax ñuy wax côté boobu noonu rab amul dañoo xamul lu ñuy wax ndax ninki nanka bi ngay dégg ñu ne boo gis ku ko gis dee bu la gisee nga nga dee ninki nanka yeew la woon yeew bu dem ba mat ba dem ba toll ba natt boppam ci sibi sëñ bi yow ngay gis rab yooyu yëpp waaye yàlla defal nañu tawfeex may nañu xam ci lu bari parce que suñ maam ci côté wàllu si suñ côté wàllu yaay yaa ngi dégg séeréer lañ yaa ngi dégg gëstu nañ ci lu bari te am na loo xam ne donn nañ ko ci te am na loo xam ne mënuñ koo wax ci télé ndax yàlla wax nañu ko wax xamal nañ ci lu bari macha allah kon foofu leer na wax nañu ci wàllu politique beeg lépp ak ki bëgg gañee dakaar naka lay demee nee nga tamit Sonko mën na gañe fee waaye Dakar moom mënta ne Dakar moom dana métti lool parce que mais nag gars yi ñu ci ciy xam nga Dakar Bart fi nekk. waaw Sonko mënul gañe fii gañe fële. Hmm. Dakar Bart fi nekk. Hmm. Bart mi fi nekk tamit ku ci nekk ci ñoom rek li nga war a def boo ko defee mën nga am ndam.